fekk ni dëkk bi moo am ñoo xamante ne nii jàpp nañ ne luñ mën a def c'est-à-dire que Ousmane Sonko mosoon na ko wax ñii suñu ko jekkoo pour tër ko rendi dañ koy tër rendi dugal ci bërigo taal ko comme Lumumba parce que foofu la seen coxarte yegg seen coxarte moo yegg foofu te lépp li ñuy wër bu guddeeg bëccëg mooy fexe ba dugal ko ci kaso bi te bu duggee ci kaso bi ma wax ko Sénégalais ñu dégg ko euh, du génn ak bakkan wala bu génnee du amati njariñ ci àdduna ah bon parce que loolu mooy seen bébét parce que dañoo soxor dañoo soxor te nguur jaral na leen lu ne. mais loolu dama toog ci benn émission dama toog ci benn émission xam lan laa fa wax. mais bu fekkente ni pour arrêter ko la rek condamnation doy na ci sëkk. mais pourquoi éliminer ko. noo koy condamner mais mais attention attention le commando rest un commando même derrière le barreau gis nga Ousmane Sonko ni mu yëngalee réew mi. gis nga ni ko askan wi toppee waxuma ay militan am ñun bëriwuñ militant sénégalais yi ñoo jël affaire bi projet bi ni lii ni ma ni ni ñu projet wu Cheikh Anta rëccee projet wu Mamadou Dia rëccee projet Pastef du ñu ko rëccee ça de la personne de Ousmane Sonko dafa am solo looloo tax ñoom jàpp nañ ne waa ji nekk fi di dund baaxul te complot bi mën na sax génn Sénégal kenn xamul gis nga mbir mi ñun dañoo ñëw ñu ni bañuñu benn réew waaye nag sama boppam la gënal du bañ naa la ñun Sénégal dañoo am or am pétrole am jën yu doy am suuf su nangu tàlli am ay ndaw yu nangoo liggéey am lu nekk ngir Sénégal dàq ci àdduna bi mais Sénégal di gën a wéy di deltu ginnaaw ñi ñu coloniser woon wëlbatiku di ñu noot jël seen ay préfet teg fi di ñu def lu leen neex ñu ne loolu la ñu bëgg mu dakk suñuy waxtaan ak waa France dañuy waxtaan ak ñoom ci gagnant gagnant suñuy waxtaan ak waa Turquie ñuy waxtaan moo tax nag ñun l'avènement de Pastef ñi koy dakkal mooy ñi dem ci salon de massage koy dakkal non non ñi koy dakkal askan wi projet Pastef mais il faut moom leader ñi koy dakkal mooy ñi nga xam ne ñoo ñooy fréquenter salon de massage yi dama bëgg dama bëgg nga yaakaar ne yow boo ne bés boo yaakaaree ne Ousmane Sonko moo porte moom kese kese kese mooy projet Pastef wala moom kese kese kese moom mooy changer réew mi <laughs> mais ça veut que kon kon kon juum nga xam nga lu tax projet bi encore une fois ñun ñi ci fës sax di ci wax xëy na ñooy ñi ci gën a euh, ñàkk solo projet bi sénégalais yee ko porté de tout boor je di bien de tout bord même de l'autre côté de tout boor même de l'autre côté xam nga la mu am solo. en tout cas élection yu mujj yi wane wu ko. ah élection yu mujj yi malgré ñëpp xam na ne. élection yi non li nga wax li nga wax ak ak li ñu génn wane ko. fan nga gisee parti politique moo tax su may dégg ñu naan génie politique Macky Sall génie politique c'est pas un génie politique génie politique doit utiliser moyen de l'État pour arriver à tes génie politique mooy qui sort du néant comme Wade l'avait fait mais comme Pastef l'a fait 2014 tu sors du néant soo génnee di dox kenn xamu la en six ans sur surclasses la classe politique aujourd'hui Pastef est le plus grand parti du Sénégal neex naqari loolu mooy génie politique te sàccuñu alal rey ñu nit defuñu dara loo xamante ne nii wàccoon ak yoon lu dul dañoo ñëw waxtaan ak askan wi nàmm seen xel ubbi seen i gët wax leen liy yàqu-yàqu réew mi li teree dem réew mi ak li war a ak li war a mën a demal réew mi. askan wi nangu ko. dooleel ñu ñu dem élection première élection élection yoo xam ne ñëpp xam na ne élection yi dañ ko jaxase terewul. Mhm. ñu génn troisième pour une première participation. Mhm. ana kañ doon wax ne mooy deuxième mooy chef de l'opposition fan la mujjee. Mhm. dem kam mooy chef de l'opposition. Mhm. d'accord El Hadj tey jii ñu ngi doon wax procureur de la république génn génn boobu bu ko defoon joxe ay firnde comme ni mu ko defee woon. ci xalifa non ni mu ko defoon ci xalifa. su ko <laughs> defee noonu ah, waaw lu tax ko ci 94 milliards bu ko defee. lu tax defu ko ci 94 milliards yi su ko defee ci problème bi laay wax. lu tax defu ko ci pétrole bi. loolu loolu moom peut-être mu tontu la ci mais dama ne bu ko ah, defee. non non ah, non du ko def. du ko def de. su ko defee ci problème bi laay wax. na ko def. indi ci ay leeral yu leer na ko def. su boobaa lan ngeen di wax. na ko def xanaa procès du am. na ko def procès bii bu dee dina am. bu dee dina am. parce que xam nga y a ce qu'on appelle les objectifs principaux et les objectifs spécifiques. ak yi làqatu ci ginnaaw xam nga dafa am nu ñuy demee calcul bi ñu demee euh, suñu ko mënul tëj ci procès bi tamit nañ fexe ba yàqal deram gàkkal deram woon Sénégalais yi ne waaj yi ngeen yaakaar na mooy waaj yi du mu waaja moog ñu ne yem képp ñoom ba ñu commencé ba léegi loolu la ñuy wane moog ñu ne yem day xeex système bi waaye moog ñu ne yem moog ñu ne yem sénégalais kii moog ñu ne yem. mais même bu ñu yemoon ak ñoom sax xanaa ñu tànn leen tuuti sénégalais yi mën na xaaral ñu essayé leen parce que ñoom ñu ngi fi 1960 ba léegi encore une fois ñu ngi fi 1960 ba léegi moo tax ma ne la mënuñoo yem Papa Ngagne mënuñoo yem. te waa ji mënuñoo fexe ba takkal ko ba mel ni moom. mais d'accord mais. mais système boobu aussi du ngeen ci du ngeen ko xase noonu parce que. système non duñ ko ngeen fi egg aussi. xam nga boo yaakaaree ne boo yaakaaree ne boo yaakaaree ne système bi ay nit la. da ngay juum. Mhm. du nit encore une fois gis nga biir APR ya de vrai patriotes ñoo xam ne ànduñu ci li xew nii jusqu'au haut niveau je dis bien. mais mais El Hadj nga baal ma mais est-ce que xam nga ci biir Pastef. am na ñoo xam ni ànduñu ci li Ousmane Sonko def. dem ci salon de masse c'est normal non dañ leen koy nangul xam nga lu tax. voilà xam nga lu ah, tax am na ñoo xam ni dem ci salon. non xam nga lu tax élage est-ce que am na ñoo xam ne gëm ñu woon ni dem na fa. mais c'est normal bi a. mais que jàppoon nañu ëppale na boppam loolu muuse na. non du ëppale boppam loolu de nit mooy mooy kumpa Ousmane Sonko doomu aadama la nit bu am ay qualité am ay défaut c'est pas est-ce que loolu mooy importance bi est-ce que Ousmane Sonko lekk na alalu réew mi est-ce que Ousmane Sonko gis nañ ko mu corrompre gis nañ ko mu rey nit gis nañ ko mu def yàqu-yàqu yi am ci réew mi xam nga lan mooy lan rek mooy cat mooy mooy mooy mooy mooy mooy maanaam moo ko sonal mhm. mooy xëy na ba ñu commencé ba léegi nit ñi mënuñ woon a gëm ne politicien bu xawee parfait nii am na yegg ci niveau boo xamante ne nii dafa am solo li may wax dañ ko xaw a idéaliser alors que non déglul dafa am solo dañ ko xaw a idéaliser moo tax ma ne la nit kese la waaye nag <laughs> bokku la gars yi de soree ak ñoom dëgg la nit ku sàmm boppam la <laughs> nit ku sàmm boppam. gaa yi gaa yi ci li leen di dégg bu ñu ko waxee ñi ñu jël ay mbool de fekk leen fa. garaawul mais amu ci. xam nga dama la amu ci. déggoo li ma la wax. non mais plainte laa la ci. non ma la wax. waaw plainte ñan ñooy plainte boo jëndee plainte foo koy déposé kam mooy validé xam nga euh, ki taxaw ni ki taxaw 31 décembre mu jàkkaarloog Sénégalais yëpp ne leen am na ñoo xam ne boo leen jàppee réew mi tas donc du ñëpp lañ mën a jàpp. Sénégal daal moo am loi boo xam ne dañuy sepp ñii lañ mën a jàpp ñii lañ mënul jàpp. Mm-hmm. ñii ànd ak moom lan lañu fi deful ci tooxi doona lan. mais tollu faux billet mais tollul lu ne tollul nii de. lan tollul ni viol de. ban viol encore une fois. tollul ni viol de. yow da ñëw jugé condamné on parle de présomption. Mm-hmm. encore une fois. Mm-hmm. ne parle pas de viol. on parle de présomption dafa am solo. encore une fois dañ ko accuser non dama ne dañ ko accuser non non non mais li may wax coowu viol laay wax waxuma moom moo ko def waxuma def ko mais dama ne li ñu koy tudd viole la waaw li ñu koy tudd viole la voilà koy dañ dafa am ko ko jiiñ ne la waaw sànq posé naa la question nangoo ma ci tontu mhm. ma ne la ndax nit ki nga xam ne ton bourreau bi ñëw dugg ak ay fetalam teg la viole la dem danga koy xaar mu ñëwaat mu ñëwaat violé waat la dem ñëwaat violé waat la dem ci ginnaaw ëllëg sa mu ne la message la ne la maa ngi ñëw xaar ma nga xaar ko mu ñëw violé la dem est ce que loolu yenu na maanaam xel mën na koo nangu ñu ne léegi ni gën a gaaw comme ñoom def nañ seen ay réquisition déglu seen ay témoin nee nañ yóbbu nañ ko am certificat médical ñu ne leen génne leen certificat médical bi témoins yi ñu ci cité y compris leur responsable connu de Benno Bokk Yaakaar mhm. et son fils qui est chercher la fille yóbbu ko nañ leen wax nan leen cité mhm. ki bind lettre bi nañ ko cité mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne buñ ci yeggee dinañ ko wax encore une fois loolu am na loo ci xam <laughs> buñ ci yeggee dinañ ko wax noo dama ne ndax am na loo ci xam am na lu ñu ci xam ci responsable Benno Bokk Yaakaar boobu non dama ne am na lu ñu ci xam lu bëree bëree bëri lu weesu responsable bi xam nga euh, ñun wax tëgg yàlla du ñu nangooy wàññi wàcc ba ci yenn bases yi d'accord mais ñun ku ñu sut ku ku suturaalu sa bopp sax ñu suturaal la d'accord mais El Hadj problème bi yow nga nekk kilifa nga demal sa bopp ba ci salon bi la fa mhm. xew-xew fa nga taxaw def sa déclaration naan Macky Sall la naan Bassirou géey la naan ministre de l'intérieur la est-ce que loolu responsabilité la. j'ai une question. suñu la non non non non dafa am solo. pourquoi dama la bëgg dama la bëgg a firndeel. waaw dama la lu tax. yow yow yaa taal sa oto nga demal sa bopp. nga def fa la nga fa def. ba plainte fekk la si nga def fa la li ko la mu fa def mooy li ko jural plainte bi. lan la fa def non la fa def. ah kon dafa def. non de non déglu ma rek nga def fa la nga fa def. lan la fa def kay laa bëgg a xam def xam nga xam nga yow mënuloo fexe ba ñu gëm usman Sonko weddi li ndaw si wax. mënoo fexe bu nga gëm ndaw si. loolu loolu a laaj Ousmane Sonko lan la fa def. ok mais mënoo fexe yow ba ñu gëm Ousmane Sonko xam nga fii ku neex sax. nga ne nga nga gëm nga gëm lu ndaw si sax waxul amul problème. dama ne. ok Ousmane Sonko lan la fa def. li ndaw si wax la fa def. te dans loolu la def. mais loolu la fa da nga ne li ko ndaw si jiiñ. non xoolal dafa am solo dafa gis nga man ci ci wolof la ñuy wax te da ngaa dégg wolof te faram-fàcce nga wax comme ñu faram-fàcce ko mu leer du ma fi nekk di jouer ci mots yooyu vraiment ah non non non dem ci leneen dama ne waaw dañ koy faram-fàcce mu leer dama ne ñun du ñu wàcce suñu bopp ci yenn base yi bay tudd ay ayibu jàmbur gis nga Ousmane Sonko buñ ko dogoon jàpp ko ci mbedd mi dafa am gel dafa am nangam ak luñ mën di wax c'est sa vie est-ce que loolu moo intéressé sénégalais yi wala projet politique bi nga xam ne jaay nañ ko sénégalais yi. non loolu intéressé wul sénégalais yi xam nga lu intéressé sénégalais yi. léegi plainte bi moo intéressé sénégalais da nga wax ne lan moo tax. ñu jiiñ ko ñoom Macky non da nga wax ne lan moo tax ñu jiiñ ko ñoom Macky. ma ne la suñu génnee réquisition yi nga gis ne cité nañ ci un responsable di benn Bokk Yaakaar ak doomam bu ko jëli xanaa di nga mën a nangu ne yëpp yi rax na d'accord nga. non mi ngi dépendre. ci non dama ne suñu génnee euh, ci ci ban relation mbokk wala xaritoo la ñu seq ak ndaw si loolu mën na nekk c'est pas parce que da nga nekk benn bokk yaakaar wala mbokk do xarit gis nga li mu def bu ko waa APR yéegee dëgg dañ koy fekk këram dóor ko dóor yu métti man maa wax lu ni mel xam naa ne fi mu nekk fi mu toog nii tëddul toogul fi mu nekk nii tëddul toogul waxantu wuñ de Pape Alé kii Pape Ngagne nga baal ma xam nga lu am solo gis nga mbir mi te Benno Bokk Yaakaar la bokk bu baax a baax ah lan nga lan lañ lan nga liir ci lettre bi lan nga ci liir loolu nga ci liir n'est-ce pas gis nga mbir mi encore une fois non mbir mi dafa neex. non désolé. <laughs> dafa neex non désolé El dafa neex yéenewu ma ko woon Sénégalais yi ñu yegg ci niveau bi parce que tey yaakaaroon naa ne. dañu waroon a nekk di xool naka la ñuy xeexee mbas mi. amuloo ah mais euh, El Hadj Malick amuloo looy wax boobu ba léegi. lu dul toxu si bënn saañ ba réer lu dul dafa neex alors que li ñuy tudd sa leader mais du musiba xam nga tey euh, ñu. donc su ma la su ma li am solo mooy munoo fexe ba dun la sedd ci gaalu xaj. li am solo mooy nga ñu bañ laa fekk nga cay lekk loolu moo am solo gis nga tey. Ousmane Sonko dañ ko fa fekk Ousmane Sonko mais dañ ko fa fekk ci gaalu xaj bi ngay wax ni fa fekk. xam nga Alaaji Malick non dañ ko fa fekk bu toogoon këram lii du am. ma ne su toogoon këram ki koy commencé 22h ñëw. gaalu xaj bi mais gaalu gaalu xaj bi mooy Ousmane Sonko la nekk ko. gaalu xaj bi mooy Ousmane Sonko rebelle la nekku ko gaalu xaj bi mooy Ousmane Sonko daa violé violé wul dama la bëgg a wax encore une fois. du kon yow yaay juge. non du question may. ah non mais bien sûr. li may wax nii yow yaay atte ay firnde yu leer laa ci am. ak yow nekkoon da nga fa nekkoon. déggoo li ma la wax daf la tàgg woon. ma ne soxlawul mu may tàggu. dans sa vie privée li am solo mooy démontrer clairement que ceci est une cabale politique maanaam lii ay nit. ñoo xam nga ñun dañu yàgg artu dañu yàgg artu ci loolu à des élections artu woon nañu fi parce que nit ki nga xam ne yaa ngi xool noo mën a def ba laq ko jant bi guddeeg bëccëg ci loolu ngay liggéey. d'accord foo xam ne yow yaa ngi waroon a xool naka laa mën a def. ba xeex mbas mi loolu dégg naa Ousmane ko wax ko. mais dégg naa ko ci benn ci benn bataaxal bi mu bind euh, ci lendemain wu fee mais ci lendemain bi ci foofu la yem dafa wax rek lii lañ ma jiiñ jiiñ ma nangam nangam mais ci biir amul fenn fu mu expliquer que demoon naa ci salon ba te loolu aussi ñi ngi ko ci doon xaar ci loolu. ku nekk ak ce communication. mais xam nga la mu amoon solo ci lendemain bi na ko wax. non mais yow yaa yow yaa ñuy wax naka la ñuy defee suñu stratégie de communication. li am solo mooy bu wax sa Ousmane Sonko saa yu wax ak sénégal Sénégalais c'est le leader qui s'adresse le plus au peuple sénégalais. mooy leader bi ëpp li muy wax ak Sénégal yi saa su nekk saa yu ko jamono laajee dama bëgg wax ne jamono yi Pape war ñu woon a fekk ñuy waxtaanee waxtaan yu doy waar yu yu yu yu ruslu fii ci ci mim réew bu ñu rusoon kilifa diine yi sax duñu fi indi yu ni mel. waaye waaye xam nga fan lañu ñu. la ci xam nga Ousmane xam nga lu tax dérangé wu suba Ousmane Sonko wasin na sukk na jur doom. bu ñu ko déggee sax du ñu bett moo leen dese du ma déranger koo xamante ne nii tu es le leader plus insulté le plus calomnié suba ba ngoon ñi ngi ci yow man kii bu ko yàlla aaraloon heure bi faatu na bu yàgg suba ba ngoon loo xalaat ak loo xalaatul jiiñ nañ ko ko wasin na daal dégg ko te gëm naa dina ko dégg sax boo moytuwul encore une fois jamono ji naka la ñuy parce que nag dafa dem ba xam ne lajj na xamatul ni muy gérer économie réew mi xamatul ni muy gérer mbas mi ñu indeeti fait divers parce que li fait divers la ñu indi fait divers waaye nañ ñu wax. naka la ñuy def ba xeex ak mbas mi. ak lan la ñuy wax naka la ñuy def ba relance def relance économique. non mani